développé par les Américains amul keneen ku jóge fële ñëw développé Amérique américains ñoom ñoo ko développé parce que dañoo gëm seen réew gëm ne lay développé seen réew ñoom la américain yi ñoom ñoo ñu forcé nekk première puissance économique du monde ñoom ñoo ñu forcé nekk première puissance militaire du monde parce que nekkuñ ci ay détails dañoo nekk ci liggéey dañoo nekk ci jub dañoo wàññi li nga xamante ni moom mooy corruption. xoolal ki nga xam moom mooy Donald Trump ancien président des États-Unis d'Amérique il fut au moment donné il était l'homme le plus puissant au monde aujourd'hui il est poursuivi par la justice américaine ñaata nit ñoo dee ci événement yi mars ñaata xaalis lañ sàcc Sénégal. ñaata ministre ngay gis ñu nekk ay ministre milliardaire ñaata nit ñoo dee ci événement mars yi ba tey justice n'est encore faite France bi ma nekk laa euh, démb rek benn oto moom moo saaraan dafa saaraan rek de mais bi mu saaraanee daanu am benn xale bu ci dee mais waa ji nga xam moom mooy chauffeur bi doon dawal oto bi sax dañ ko jàpp tëj ko mener encore enquête pour xam lan moo waral origine loolu Sénégal ñaata nit ñoo fa dee est-ce que gis ngeen ba tey ñu jox ñu suite ci yooyu noonu nga xamante ni am état bi engagé na souvent je me est-ce que on est réellement dans un état sérieux xoolal France événement yi nga xamante ni amoon na fi bi ñu reyee Nayel manifestation yu métti gars yi lakk ay bus lakk ay lunettes euh, euh, cambriolé ay banque def lu nekk mais dëggoo benn yoon ñu ne benn français dee na ci parce que bu benn français dee day mel ni la France qui est mais xoolal Sénégal des policiers kii se permettent de tirer des balles réelles ci population bi euh, justice du wax président di wax procureur du wax loolu aussi liñ ci mën a jàngatee mooy lan manque d'indépendance bi nga xamante ni am na ci suñu justice liñ ci mën a jàngatee mooy lan nous devons avoir une séparation des pouvoirs pouvoir légis exécutif bi dafa war a génnee loxoom ci législatif bi ak ci judiciaire bi gis na loolu fekk amuñ ko rek duñu mën a am un état de droit fekk amuñ ko rek duñ mën a am justice suñu dëkk fekk amuñ ko rek démocratie bi day gën a dellu ginnaaw man loolu mooy sama gis-gis en quelque sorte parce que mënuma d'accord tey maître euh, si je comprends bien vous êtes dans vous êtes si ce que j'arrive pas comprendre mooy le fait que euh, on prend euh, le ministre de la Justice qui est nommé par le président de la République et qu'il y a le procureur et le procureur général tous les deux qui dépendent du ministre de la Justice et que le ministre de la Justice il exécute l'ordre venant de l'exécutif qui est le président de la République est-ce que en ce sens et bien une justice indépendante mais selon man non selon man non bu nekkee peut-être yow am nga ci beneen euh, gis-gis mun nga ñu ko fi exposé pour que ñun ñu mun ko gën a comprendre mais man je pense que pour ñu am justice bu indépendant il faut que ñu def le tout mu am benn scission boo xamante ni dafay am entre l'exécutif le légis euh, le législatif et le pouvoir judiciaire. su ma revenir un peu ci mbirum élection yi nga xamante ni ñoo ngi ko doon wax gis nga man je ne suis pas de Pastef je ne suis pas patriote mais au début. tu de PDF. au début non je ne suis pas je ne suis plus avec PDF au début je fais partie des gens qui critiquaient Ousmane Sonko et je, je l'admets mais à un ah, moment donné je, me suis rendu compte que Ousmane Sonko bii kat wax dëgg fa yàlla il est en de subir une injustice te dëkk bi képp koo xam ne taxawoo soutenir ko rek par parloo rek moom moo la jàpp te dina am fu ñu toll nag Sénégal dañu war a jël par parloo teg ko à côté mettre l' intérêt du l' général l' de la République au centre et au cœur de nos préoccupations. waaw dès lors que je bi ma xamee ne dañ koy teg injustice ma commencé nag taxaw di ko défendre comme je le disais toujours et je l'ai commencé juste après. Pape. désolé hein, de te couper. allez-y euh, allez-y excuse-moi bon bi ngay posé question bi sax sànq tout maa ngi doon. parce que dama yàgg nag ci live bi quoi xam nga ma chère Paulette laay wéetali nii quoi alors euh, <clears throat> tu as une question effectivement hein, je suis parfaitement d'accord avec toi et ça je pense que ne xale bi door a juddu sax wala bu amul ay at yu bari boo ko laajee justice bi euh, et tout et tout dina la ci wax lu am solo donc euh, cette scission dont tu parlais tout à l'heure et cette séparation des pouvoirs ah donc école sax da nga daan jàng hormis même les études euh, juridiques, euh, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir euh, exécutif, donc euh, amul quoi, amul donc loolu dafa leer et que euh, politique menée par ce régime dañu dugal seen loxo bu baax a baax ci ce pouvoir judiciaire moo ñu indi wala moo ñu yóbbu ci lii yëpp. mais man dama la bëggoon poser question tu, tu, tu as dit que tu n'es pas de Pastef tu n'es pas patriote euh, à l'heure où je te parle hmm. lan moo tax nekkoo patriote hmm. bu fekkee nee nga ñu ngi teg ay injustice Ousmane Sonko hmm. lan moo tax nekkuloo ci ci ci ci combat bi ak ci projet bi nga xamante ni fii ñu ngi fi fekk ni muy Diva di man di euh, Paulette Mhm. Euh, ay patriotes lañ donc la moo tax rejoindre loo patriotes yi. merci beaucoup. maître bëgg naa ci yokk dara sama question nga nekk di ko posé maître mhm. merci beaucoup mhm. sama gémmiñ gi nga ko génnee maître merci euh, xanaa da nga bëgg dafa génnee ko wax ko ko euh, c'est pas pour vous dama bëgg xam dara ndax yow Euh, pourquoi ba ba pourquoi maître Tao vous a déjà demandé ça mais yow xanaa da nga bëgg visibilité chez nous les patriotes parce que man je t'ai toujours suivi quand tu parlais de Sonko quand tu critiquais Sonko. Mm. man man je suis sous mode sous-marin laay def. Mm. j'observe les gens je les écoute. Mm. mais maintenant tu es revenu tu tu parles avec les patriotes tu es toujours avec les moi je sais que tu da nga bëgg a nekk politicien. un jour tu veux diriger le Sénégal moi je t'ai bien écouté. Mm-hmm. Motsuwara. Mm-hmm. dama ne tôt ou tard il vient euh, moom dina ñëw sama panel. Mm-hmm. j'avais dit ça à des à des patriotes. te tey mu ngi nii nii yàggoo sax moo ko waxee. man je me pose la question visibilité nga bëgg chez les patriotes wala wala da nga bëgg patriotes yi bàyyi la xel. alors chercher. Okay, merci vas pour pour la question donc je commencerai d'abord par euh, répondre à la question la plus récente celle de Paulette alors déjà s'agissant de visibilité pour les patriotes. peut-être que xamoo ma xaw ma la on s'est jamais vu mosuñ gisee à part les réseaux même si c'est la première fois may dugg sa live miinu la aussi miinoo ma c'est très normal parce que amuñ benn lien boo xamante ni créé na benn. c'est pas pour vous juger hein. parce ouais, que damay damay déglu say kii si suuf je suis. waaw mot suuf mara laay def. waaw waaw c'est pas pour vous juger désolé. ok voilà non mais t'inquiète c'est pas une question de jugement en plus réseaux sociaux moo mel c'est l'occasion de poser à la personne euh, lépp li nga bëgg a xam donc s'agissant de visibilité ci patriote je pense que tey s'agissant de visibilité man balaa may doon dugg sa si les serviteurs balaa may sa am compte TikTok j'étais déjà visible. et boo weddee li ma la wax mun nga dugg YouTube si kanam su la neexee wala nga dem Google su la neexee wala nga dem ci yeneen réseaux sociaux su la neexee tu mets mon et tu vois gis publicité yi nga xamante ni def naa ko ay années derrière bien avant même may gën a am benn euh, visibilité boobu ci réseaux sociaux yi noonu quoi donc s'agissant de la visibilité des patriotes nekkul loo xamante lu may xool parce que nit booy def dara di ut visibilité ci yow. et je pense très bien que sànq bi may débuté samay parole dama leen ne je faisais partie au début ci ñi nga xamante ni dañ doon critiquer Ousmane Sonko parce que la ma ko doon critiquer noonu boo seetloo c'était pas des critiques subjectives mais c'était des critiques objectives mais à un moment donné je me suis rendu compte que ce Ousmane Sonko là il est en tout simplement de subir une injustice boo xamante ni un système et un lobby derrière ñoo ko koy jéem a imposer maintenant nag il faut mettre à côté suñu casquette de partisan il faut mettre à côté suñu casquette de parparloo jël li nga xamante ni moom mooy l'intérêt de la nation mettre ko en avant pour mun a défendre justice boobu man de base je suis panafricaniste de base képp ku mus a xam Pape Nalla Dièye je dis pas ceux qui me connaissent il y a quelques mois ci ay mouvement les serviteurs et tout mais je parle de ceux qui me connaissent il y a quatre ans derrière cinq ans derrière sept ans derrière man j'ai toujours été dans le mouvement panafricaniste j'ai que ça soit des injustices boo xamante ni Sénégal la ak extérieur donc li may wax ni yëpp y a des preuves à l'appui yoo xamante ni ñoo ngi ñoo ngi fi nga xamante ni moom mooy moom mooy euh, moom mooy moom mooy moom mooy YouTube moom mooy moo ngi ci internet bi donc ce qui veut dire que s'agissant de visibilité lu may xaar ci patriote yi parce que ëllëg ka may yàlla rek moom moo xam du na peut-être moo ma koy def wala du maître abu moo ma koy def wala du diva moo ma koy wala du ñu ñuy suivre yàlla rek kese dong moom moo ko xam mais nit lépp looy def rek di koy def ngir dara nekkul lu sincère ci yow te nit lépp looy def di newul lu sincère ci yow rek tricherie la. parce que patriote yi soxla seen visibilité également wax dëgg fa la solo man ko benn avancement boo xamante war na ko def ci mais li nga xamante ni dama gis ñu koy defendre muy seen leader muy Ousmane Sonko ma gis ne ñoom ci dynamique bi ñu nekk mooy dynamique de xeex contre l'injustice de lutter pour la démocratie de lutter pour notre souveraineté te man ci loolu laa mus a dox ci loolu laa mus a yëngu te fa ma nekkoon itamit xëy na à un moment dama ko fa gisoon moo tax ma nekk fa mais bi ma demee ba gis ne wax dëgg fa yàlla loolu noonu nga xam moo taxoon ma gën fa engagé wu nekkatul lu ma fa gis gis naa ne euh, xëy na ka ko diriger ci boppam la gënoon nekk que ci askan bi wala que réew mi na muy doxe ma jël sama responsabilité nag ànd ak askan bi ànd ak réew mi ca na muy doxee ngir ëllëg ma bañ a nekk koo xamante ni dinaa am benn passe bu sombre ci li nga xam

de mettre donc je pense que c'est des questions qui se qui se ressemblent euh, dans le sens où même question la donc euh, maître euh, man mën naa défendre li nga xamante ni euh, moom mooy sama réew mun naa défendre Ousmane Sonko mun naa défendre euh, dénoncer injustice bi ñu koy teg sans pour autant ma jënd li nga xamante ni moom mooy carte membre Pastef te gis nga boo duggee sama sama compte TikTok di nga nga wàcc ci suuf di nga gis ay émissions yoo xamante ni bi ma demee Sénégal récemment y a même pas encore trois semaines j'ai fait pas mal de sorties télévisées et quand on m'a posé des par rapport à la situation de Ousmane Sonko li ma fa tontu ña doon suivre. déglu nañ ko ñi nga xamante également samay abonné lañ gis nañ samay vidéo également aussi déglu nañ ko et pourtant j'ai assumé devant tout le monde ce que pas mal d'hommes politiques refusent de faire que 2024 su Ousmane Sonko naree bokk sama carte moom moo koy moom te moom laay voté te ba ma koy wax tëjaguñ ko kaso. loolu dégg koy wax ba ma ko kaso te tey jii nga xam ñoo ko tëj kaso ci laa ci gën a déggu te tey jii ma leen koy wax billaahi wallaahi taala barki seexul xadim guddi laay wax de bu nekkee la may wax amul yàlla naa trop tey jii ma leen wax bu fekkee ni Ousmane Sonko bokkul ci élection yi képp keneen ku Pastef tànn sama carte moom moo koy moom xam lu tax parce que au moins j'ai vu dans le projet de Ousmane Sonko j'ai vu dans son ouvrage intitulé Solution prés euh, publié en que ñun li nga xam lañ yàgg xeex yàgg koo defendre wax dëgg fa yàlla ñoom loolu la ñuy ci ñoom ci dynamique boobu noonu lañ nekk réew mi nag fi mu toll nii ñaara fi nekk la première chose mooy jalousie la deuxième chose mooy rivalité la troisième chose mooy nga bokk ci système bi te Ousmane Sonko aujourd'hui système boobu noonu nga xam dafa am ñoom ci àndaloon tey ñoom ñoo ëlbateeku ànd ak nag le père du système ki est Macky def ko coup boo xamante ni tey moom moo ko yóbbee li ko dal ni ana Khalifa Sall dëggatoo leen ko ana Barthélémy Dias dëggatoo leen ko man le coup de Barthélémy moom moo nekk déception bi ma gën a métti ci histoire politique Sénégal Khalifa Sall Barthélémy Diaz Déthié Fall ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne Ousmane Sonko doon àndal bu nekkoon ne on était dans un état de droit te Ousmane Sonko dañ ko topp appel à l'insurrection ñooñu noonu ci boppam dañ leen waroon jàpp tey jii nii parce que mérité wuñ ñoom ñu nekk di dox libre Ousmane Sonko ñu tëj ko te boo seetloo ñoom ñoo ëppoon sax lu ñuy oote appel à l'insurrection ko Ousmane Sonko. Euh, Pape mën naa la wax dara. man ci système bi laa juddoo ci système bi laa màggee mais ci système bi c'est pas tout le monde ñoo ànd ak Macky Sall moom je suis là te ñëpp a ma xàmmee ràññee ma que je dénonce Macky Sall publiquement je mets ma tête je dénonce Macky Sall me connaît très bien Pape di partout dans la vie me connaît très très très me très bien ma famille moi j'ai grandi là-bas balaa moom muy doon dalal député balaa muy doon moom quelque chose man je suis né là donc du ñëpp ànd ak Macky ma quand les Sénégalais je te dis juste une chose quand les sénégalais di daan naan dañuy faral Macky Sall ma ne leen bu leen dem parce que kii mooy suñu musiba parce que il côtoyait beaucoup Abdoulaye Wade il faisait des choses yoo xam ne je je même pas ici en train de le raconter parce que j'ai pas envie de le faire mais man si système bi laa juddoo foofu laa màggee te man damay toog di dénoncer système bi c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde ñoo ànd ak système ñoo ànd ak loolu rek laa bëggoon dolli ci loolu excuse-moi maître vous parler parce que j'entends tout le temps ça système bi ñëpp système bi non non du ñëpp ànd ak Macky Sall. Mm-hmm. vas-y maître. Euh, je pense qu'on t'a entendu euh, maintenant euh, l'autre question c'est que parce que ñun ñëpp dañu am identité parce que tey bu diva systématiquement ou automatiquement dañ naan diva patriote la Hmm. bon nekk nag Pastef wala nekk kii wul carte quoi mën nga bañ am carte. effectivement mais tu te tu as une identité quoi donc aujourd'hui man buñ ma nee Pape avec ta ton profil et tout lu may wax Pape euh, euh, xaw ma nu ñu koy waxatee sax tu as dit tout à l'heure euh, Pape Djibril Fall Pape ban laay wax yow fan nga bokk tu tu tu tu t'identifies à quel euh, dans quel parti ou dans quel mouvement. Alors, euh, je vous ai dit tout à l'heure, man, j'étais le représentant de Pape Durifal en France. J'étais le coordinateur de la coordination des serviteurs de France. Bon, man, m'a créé le 11 septembre 2000, créé le 11 septembre au restaurant Le Falilou de Paris. je l'étais. Il y a deux mois de cela, présenté ma lettre de démission auprès du leader du, du parti. Ce qui veut dire que je ne suis plus dans son parti. Pour le moment également, après avoir quitté, parce que man, je ne quitte pas, je ne parce que je sais très bien que lépp loo xam ne man lu ma mës a dugg la wala ci lu may dugg rek lu may gëm lay doon mais aujourd'hui ci parti politique yi nga xamante ni ñoom ñoo ngi fi nekk ci programme bi nga xamante ni am na parti politique yi ko jot am ci yi nga xamante ni jot naa ko gëstu jot naa ko gis jot naa ko lire et je pense très bien que ak samay idéologie ak samay principe ak samay conviction ci benn parti politique laa gis na lay identifié wuñ muy le parti Pastef même si je suis pas membre de Pastef parce que membre mooy ki nga xam jël na carte de membre bokk ci parti bi di présenté wu ay réunion di jël ay initiative ci ci ci biir parti bi tey jii nii man bu on peut m'identifier comme un citoyen lambda on peut m'identifier comme un sénégalais pour le moment mais un sénégalais boo xamante également am na choix am te je pense très bien que sama choix wax naa ko te wax naa également aussi li nga xamante ni en tant sénégali citoyen sénégalais mu warloo maag sama askan mu warloo maag sama réew mooy élection jot ma voté ki nga xamante ni jàpp naa ne man bu élection jote moom lay votel je pense que loolu ba ma koy wax nëbb ma ko benn sénégalais je l'ai dit publiquement et ouvertement xooluma lu neex ma xoolu ma lu neex ma Paate dama ko wax parce que lu ma gëm la te ni ma ko waxee également bu amee aussi noonu laa koy defee donc pour le moment on ne peut pas m'identifier ci serviteur parce que je suis pas là-bas on ne peut pas m'identifier ci patriote parce que je suis pas membre des patriotes mais on peut m'identifier comme un citoyen sénégalais lambda on peut m'identifier comme un sénégalais boo xamante ni en tant que citoyen am na droit bi nga xam boole na ko askanam muy le droit pour que mu vote te vote boobu bu jotee jàpp naa ne li ëpp solo rek moom mooy ki may tànn wax naa ko ba pare te incha allah bu jotee donc noonu laa ko fay defee ba nag jëmm jamono ba ci kanam ba ma xool exactement man naka laay doxalee nag li nga xamante ni moom mooy sama bëgg-bëgg ci politique Sénégal bu fekkente ni dafay jar ñu ñëw rejoindre Ousmane Sonko ci dynamique am ñu def ko bu nekkee dafay jar également ñu ubbiwaat beneen initiative wala beneen brèche wala beneen perspective également ñu def ko mais li ëpp solo rek. lépp ñuy nootalee Sénégalais ñun duñ ko fekkee lépp loo xam ne également aussi xeex la bu ñu mënee pour la justice pour la démocratie pour les Sénégalais ñun dañ koy dañ koy dañ koy dañ dañ fay féetee comme niñ ko yàgg di defee. mais Pape qui est ñun qui est ñun ñun ñun xam nga le verbe ñun la si samay phrase du ma bëgg di employer je. moo tax ma naan ñun mais jàppeel ñun bi comme man mais bugguma di employé jeu. Pape mi vrai politicien la dugg naa